tey ñu ñëwoon jaal si ko ay njabootam jaal ko axlu làmb yëpp di ko ñaanal yàlla defal ko defal ko aljana daw xam nga yàlla na ko yàlla jégal ay bàkkaaram te njaboot gi mu fi bàyyi yàlla taxaw ko teg ci loxoom loolu mënoon suñu tànk tey. ku ne na ne fekke woo bi muy bëree mais yaakaar naa ne yàgg ngaa dégg ay réaction ci yenn coono wala yenn combat lan moo tax ci moom waaw comme li nga wax rek yàlla dogal na ni carrément fekkul ci lu bari mais ak Sénégal fu mu toll lépp dégg nañ ko xam nga njàmbaar gi nekkoon ci moom toll woon ni mbër yi mais macha allah nekkoon jàmbaar lool lool moom kenn werante ko ku ñàkk xam loolu xam nga ko ba tax na njàmbaar la rek du dama toll ni mbër wala def ni rek mënuma am lii marqué na empreinte am ci la am loo xam ne xam nga ñëpp ñaanu la daal lu rafet rek am daal lu rafet moo am solo waaye puisque lii du jaas vraiment. aca bu ko rot fekkaale nañ fi Khadim Gadiaga président Rock Énergie mu ànd ak Modou Lo gunge si ko ànd ak tamit ki nga xamante ne moom mooy Birame Ngingue jaane si suñu père mbay ñu leen nuyu bàyyi la nga nuyu mbokk internet yëpp nga jaane ak lu waaw ñu nuyu senegal yëpp di jaal Sénégal yëpp euh, suñu papa euh, muy El Hadj Mbaye wax dëgg yàlla Mbaye Guèye icône la icône la boo xam ni mooy li ma wax léegi rek mbër bu bëree million ak koo mën a doon boo teddee ci làmb rek amal nga Mbaye Guèye njukkal ndax moo euh, suñu papa Double ñoom la yàlla njëkk dogal ñu njëkk a bëre yenn somi te làmb terle na mbëri bëri nañ ci teral ci seen bopp teral ci seeni i waajur teral ci ay nit donc am nañu gërëm goo xam ne ak euh, cant goo xam ne milieu làmb yëpp waxuma jeunesse Sénégal yëpp amal nañ ko mbéy gi moo tax ñu koy ñaanal yàlla jégal ko ay bakkaaram xaaral ko ci àjjana ñu gën a kawe. ñun nag dañu am ci particularité avec l'écurie Fass ak Kër Malick Gueye ak Moustapha Gueye ak Mbaye Gueye parce que ñoom. kër Malick Gueye bi ñu jógee Fass kër Malick liggéey lañ ñëw parcel Tafa Gueye fa la takkee ngembam yëpp li Modou Lo di wax chaque jour fa la daan dem di jëli sarax ñun ñëpp ku ne jël na fa sarax suñu yaay mooy yaay Moustapha Gueye su ma saan yor lay bi loolu dañu daan marqué moo tax nag euh, dañu ñëw ci ñaari facette njaal gi indi ko au nom de tous les parcelles waa indi ko au nom de l'écurie Rock Énergie ànd ak Modou Lo mi nga xam ni mooy le roi des arènes mu ñëw jaale si ànd ak suñu papa biram ñi ngi mi nga xam ne tey jii kenn la ci euh, làmb kenn la ci ñun ñuy ñaanal euh, Moustapha Guèye Malick Guèye ak toute la famille yàlla na saraxam yàgg seen loxo. Euh, père Tafa Guèye wala Mbaye Guèye lan nga ñu mën a waxal ci góor gi fi jóge jërë ngeen jëf xam nga ki fi jógee moom icône la maanaam bu ñu ne woon ne làmb am na drapeau dañoo ne mooy drapo làmb ndaxte wax dëgg yàlla très jeune mu ñëw di bëre avant muy dem armée sax commencé naa bëre jóge armée ñëw dugg ci foo xam ne fu xat la woon nekk ci ab euh, borom fit bëri pexe ca lam doon def mu nekkoon mag ju baax ku am déglu te tamit euh, ku yaatu euh, mbay Gueye mun nañ ne ay innovation yu bëri moo ko fi indi boo jëlee par exemple bu ñu waxee ne nit ñaa ngi bëri ci stade ci mbay gi la jóge presque mbër am na million moo ko fi njëkk a fayee ko euh, combat bi njëkk a télévisé en direct ci mbay gi la njëkkee mook Double Less alors loolu yëpp mu nekk ay yoo xam ne dafa tombé ci moom moo xam ne aussi lu leer la lu baax la ci làmb euh, feebar nag feebar la waaye ku saayam jot rek day dem kon ñu ñaanal ko yàlla xaree ko àjjana c'était un bon collaborateur ku am franc parler également te lu mu la waxoon ci làmb ji ñaareel boo toogee te tey seetlu da ko gis kon mbay Guèye Sénégal ñàkk na ak làmb ñàkk na mais sportif yëpp ñàkk koo xam ne vraiment c'est un grand champion alors amoon woy boo xam ne dañ ko tuddee ngir jikkoom ak melukaay ak moo ci làmb mu nekk ñu ne ko tigre de Fass donc loolu njàmbaarte la woon dañ di ko kañee donc moom dañ turu rek kañ la woon kon loolu vraiment dañuy xam ne Euh, bu dee bu dee àdduna rek euh, jàmbaar la alors. mu am benn ancienne gloire bu ñu ko tuddee. waaw loolu nag xam nga état bi mooy seet ka ko doy selon ay critères yu muy fixé mu dëpp mu tuddee ko n'est-ce pas arène nationale. fi mu nekk tey jàpp na arène nationale arène nationale tudd euh, waaye état ci boppam saa bu demee pour mu baptiser ko rek. am ku ko tuddee dana génnee tur waxu sportif yi ñëpp ñu yëgandoo ko par décret. alors euh, ginnaaw njaal yi tamit naa ci boole suñu njaal famille ndaxte ki fi des taawu kër gi wax dëgg yàlla doomam mu ngi suñ kër muy Lamine Top donc doom maa liggéey la kon nag euh, su ay deret jaxasoo rek mbokk ñëw famille daal di ñëw ci turi CNN yëpp ñu ngi leen di jaal vraiment ki fi jóge mooy suñu grand mbay gi nekkoon suñu mag ju baax gu yaatu di ñaan yàlla itam mu xare ko mën nañu jàpp lamb ji reprendre mais mais mais oui que continualité ensemble ah nañ kon ne di bëreeg euh, corona bi buñ ko daane rek ñu ubbi lamb ji dootul yàgg incha allah te gëm naa également que fi mu ne nii su fekkee tendance baissière bi continuer na effectivement léegi mu daanu mañ ñu ubbi suñu lamb ci kàttanu yàlla merci. acca Big Pato ginnaaw bu ñu ñëw rek ziar la di la jàll ki nga xamante ni tey moom lañ bokk di mbay di bëggoon xam rek li waral teewaay bi tey. waaw Boucar ginnaaw bu ñu sant yàlla jiitu sama gën suñu ñaari waajur bon maa ngi lay di jaar di nuyu ak lu làmb yëpp di masawu ci yoon di jàll ñëpp di wax ni tey suñu tànkat mooy tànk képp kuy sénégalais képp kuy jeune euh, ku bëgg làmb di ko suivre parce que buñu nee Mbaye Gueye kat mooy wax nga monument làmb parce que nekk na ci koo xam ne tey histoire làmb boo nee làmb ne écurie Fass te boo nee écurie Fass ne premier tigre de Fass kon bu génnee àdduna kat képp ku bëggoon làmb rek wala ngay amaatal rek ñàkk nga parce que Mbaye lim def fi làmb ñëpp gis nañ jamono yi ñoom seen jamono ñoom maam Doudou Bakassar ak ñoom euh, góor gi papa kat bu génnee àdduna ñun ñëpp a ñàkk luñ mën lul ñëw jaale si suñ mag suñu xarit Tafa Gueye mii nga xam ne sama xarit la maam moom fu ne lañ fi ànd Tafa Gueye mii ñu bëri xamuñ ni moom boole Mamadou Aly Ndiaye bi may dem Paris parce que daañu daan ñëw nekk entraînement buñ paree dem këram soxnaam toggalanu ay togg kon relation yu baax laal dañ am nit nag bu ngeen amee relation bu ñàkkee li nga man rek mooy dem jaaloo ko massa ko ñaana yàlla aussi way làqu yàlla yërëm ko te xaare àjjana Mbaye Gueye moom vraiment nekkoon na mag moo xam ne ni référence woon ci làmb daal ñu koy yàlla yàlla yërëm ko te xaare ko àjjana lan nga man lu ma gën a na impressionné mooy dégg naa moom moo njëkk a imposé à ce que ñu fay mbay mbër 1 million ça veut dire moom bu ñuy wax révolution làmb moom ci moom la commencé ka ku respecté woon boppam ku amoon fulla la dégg naa ku amoon ngor la ku amoon coloré la te ñàkkuloon fulla aussi man personnellement am na événement woo ma ne Pato nangam de laa war a def rajo ça veut dire woon message yi mi ngi man ba léegi ça veut dire moom du xeeb nit loolu bu ko doon def te moom mu njëkk ci islam bi muy jut bëre ju duñ pour demee ba ñu laaj conseil ci ay événement yi muy organisé ça veut dire que kon réyul ñu bokkoon association ba ñuy wax bi nga xam ne ni moo jiite làmb yëpp kon daal ñu ngi koy sant di ko ñaanal yàlla yàlla ko yàlla yërëm ta xaar ka àjjana di leen gërëm yéen aussi presse bi parce bi ngeen fi def ak yéen Lamine fan yëpp ñu ngi leen gis ngeen a lu baax dina yokk yërmandeem si yàlla dina tax nit ñi gën koo yërëm jaajëfal jërëjëf jëwriñ Bassirou ñu ngi lay nuyu yow tamit di lay ziara sa réaction par rapport ak Mbaye Guèye mi nga xamante ne jóge na fa ak kàddu yi nga xamante ne Moustapha Guèye wax na ko jëmale ko waaw la ngi lay fay Lamine di nuyu waa Lutte bi yëpp ndeysaan di leen jaale tamit li ñu bokk ndax su ñu waxee àllu làmb eh, am ko ci wàññeeku muy sunu papa mbay géey yéen am ngeen ci eh, dëgg-dëgg solo eh, ndax mooy sunu pàpp bu baax nag xam ne yàgg na bégal Sénégal def fii lu am solo mu ni monument tax na ñu bëggul woon làmb sax bëgg làmb ba yëg si fii ndax daf ci nekkoon ba mu dem ba jamono defatu ko waaye kenn mësu ko gis mu wax lu ñaaw wala mu jëf ko moo tax tey bésam yi wane na ko euh, xëy na miinante wuñu ak moom bu baax sax waaye sunu papa Tafa muy sunu pap di suñu lépp fonk ko moo xam ne bërki démb rek la jóge sama bureau ndeysaan ma koy laaj paa ci ci lendemain bi rek mu am ñu ñëwoon pour jaali indi suñu njaal indi waa njaalu ci commune Tivaouane Peulh ñàgg yëpp euh, di leen di leen di leen massawu njaboot bi di ñaan yàlla yàlla xaree ko àjjana may ko àjjana bu sedd guy njaboot bi mu fi bàyyi yëpp yàlla teg ci loxo maa ngi ànd ak nag sama rakk sayar euh, ak sama xarit Big Pato xam ne ñoom it sama nit yu baax la ñu wax dëgg. sama xarit Ndeye ak Ndeye Seck ak Mohamed <laughs> jërëjëf